moom day waxtu ak si na waaye moom dara xaju fi de cant rek ci des dara desu ci lu sant ñu ngi gën a sant suñu borom bu baax ñu booleeg sëriñ bi di gën a sant sëriñ sant sëriñ bi bi nga xam ne mooy suñu lépp te ak ëllëg te fàggul nu lépp ale lii lépp ci fàggu teful la kon noo ngi sax ak cant rek moom la ñuy yeesal di gën a am yaakaar di gën a rafet njort di gën a am xel mu daal kon lépp ak cant rek la gis nañu waa dégg nañ ni sëñ Sam bu soo jëkkee waxe sëñ Ahmadul Badawi li eh, eh, mu ci teg leeral yi li mu ci teg dégg nañ ko lépp fa tabarakallah loolu moom bi ñuy njëkkee xalaat xalaat bi muy mbooloo moo day boroom xam-xam yi ñi nga xam ne ñi ngi ñoom xam-xam mooy seen itte loolu man ko jëkkee xalaat ak léegi yàggul dara jàpp nu woon ne dana agsi fii tey ci nëgg ci waxtu wi yëpp jàpp nu ko ne dañ doon def suñu suñu yéene rek ak suñu positif ak suñu itte ak suñu wartif loolu rek moom lan xalaatoon ne borom xam-xam mat nañoo mat nañoo mën mën nañoo mën nañoo yëg eh, eh, te ñu yem ñoom ñu yëg seen bopp te te te xam fi fi fi liggéey bi toll waaw loolu moo taxoon nu am xalaati di daje daje mii di ko daje di ci di di jublu wuñ ci woon dara loolu eh, ñoo yéen ñi nga xam ne eh, ci seen tey bakkan seen coobare seen yéene ju rafet seen pësteef ci seen yitte ju rëy yéen a doon fàññe seen bopp ba agsi fii ñooñu ajoo nañu kañ ajoo nañu kañ ñu ajoo sant eh, loolu moom ñu ci dugaloon bëgg rek eh, eh, boroom xam-xam yi ñu yëg seen bopp yëg fi tolluwaay bi muy tolluwaay boo xam ne bu doy waar la ndax yitte ji moom mosu fee jóg waaye toll dem nañ ba taarix andil nañ doxin doxin bi ci li nga xam ne weesu nañ ko kon eh, dafay daal di mel ne eh, loolu lu muy indil faw rek mu indil nu sémb bu rëy sémb bu rëy waaw sémb bu rëy boo xam ne danay jóg danay jóg nag ci xam-xam eh, sunu kem kàttan ci sunu dund xam ne lan cee def lan cee yëngatu mën nañ ko fa bàyyi ñin ko fa fi bàyyi ñu gën a xam fa yitte ji toll fa jamono ji toll fa liggéey bi toll ñu fabee ko foofa muy wéy di wéy waaw muy wéy di wéy ni ko amul ba day wax di fàttali ilaahu kalimatillahi al-ulya loolu rek moo ci moo ci moo ba ko keroog ba gën ji mi def tàmbale woote ba ba ci suñu jataay bii loolu rek kon loolu ci loolu rek loolu ci loolu loolu rek moo ñu yitte ji loolu it mooy liggéey bi ba sëriñ bi ñëw ne ko cas moor ko bayiwu ca dara yitte ji nga xam ne moom la gën ji bindeef yoroon ànd ko saxaabatu rasul yitte jooju da ko ne cas waaw ah, ga woon moor bayiwu ca dara ci dundam ci lim ko gis mu jëfe ko jëfe bu bu bu leer waaw bu bu wér cëng bu neex a gis buñ mën a xam boo xam ne la taxoon eh, gën ji mbindéef ñëwoon eh, eh, sëñ bi ne ko caas bàyyiwu ca dara loolu la fi nekkee ba ba ba noppi koo mu bàyyi nu ko fi nekk kon sëñ bu liggéey bu rëy la kon loolu ñàkk ñàkk ñàkk solo war xam suñu bopp xam ne noonu la fi bàyyi kon kon nu da war xam ne nag war nañu jóg ak yitte ju ne cas fas yéene téye liggéey boobee fa mu tolloon di ko yëkk yëkk yëkkatil ko suñu bopp suñu kem kattan ndax bu ñu defee suñ kem kàttan rek la ca des moom borom kattan gi danañu ko yéeg dana ko danañu yéegi danañu danañu booleeg loolu yéegee kon noonu dong la demee sant na ñoo ñu ngi leen di sant di gërëm bu baax seen taxawaay boo xam ne. dëgg la seen tawféex jure la ci yéen yàlla leen ko defal moo ko def ci yéen waaye nag moo def it ngeen téye nga ngeen ngeen ngeen ngeen ko seen bopp yëngutul ci seen bopp wutal ko seen bopp di ca sonn def ci seen itte yëpp ak si loolu ñu ngi leen sant noonu lañ sant noonu lañ ni leen sant yàlla rek sant leen Sëriñ Tuubaa ni leen leen sant yéen seen bopp di leen gërëm bu baax a baax kon liggéey baa ngoog liggéey baa ngoog Euh, noonu noonu rek la demee liggéey baa ngoog nii nii nii mu demee moom alhamdulilah dara waaw alhamdulilah yàlla na leen suñu borom gën a gàtt nag tawfiq sëriñ Tuubaa ba nii nii nii ngeen nii ngeen nii ngeen ko fabee waaw suñu borom gàttandu gàttandu leen toog gën a gën leen a gàtt nag tawfiq sëriñ gën di yomb waaw muy gën di yemb di gën di yéwén di gën di barkeel ñoo ñaan bu baax ci baaxu sëriñ Tuubaa jërë ngeen jëf. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ndax li ñu yéene li ñu bëgg a wax bari